bépp daaba guy jukkat ci suuf rek yàlla nee na wërsëgam man la war yàlla dara waru ko waaye indi na baatam xalaa ngir dalal xeli kenn ku nekk sa wërsëg da nga jot rek la wax de yàlla la ko gàddul doomu aadama bu doon daw wërsëgëm ni muy dawe dee wërsëgam dana ko jot ni ko dee di jotee rek laa wax de lépp lu yàlla dogal ci yow ci wërsëg danga ko jot bu àdduna yëpp dajee woon pour xañ la ko dang ci jot waaye lépp lu yàlla dogalul ñeexal la ci wërsëg doo ci mos a jot bu àdduna yëpp daje woon pour jox la ko du mën a nekk rek laa waxalee foo mu am gàllankoor bu la ko xañ <clears throat> yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama balaa juddu yàlla dana yebal malaaka mu bind wërsëgam bi kat bi risque mu bind wërsëgam lépp wërsëg lu yàlla programme la waaye du lu nit ki di am ngir góorgóorloom de ak xelam mu réeg waaw dugg-duggam déedéet yàllaa ko programme waxtu wu nekk li nga war a am rek ngay am du yokk du wàññeeku doomu aadama yi nag la leen sonal jaaxal leen mooy waxtu bu wërsëg wala xamut ak naka lay ñëwee loolu rek moo leen jaaxal dégg nga waaye buñ xamoon waxtu wu nekk lañ war a am ak naka lañ koy amee rek dañ noppalu far yàlla mën naa programme ci nit ne dana am ay milliards waaye bisu àjjuma la koy am gannaaw bu mu julli jee jumaa dajee faak nit ku baax ñu waxtaan ci masalaam xam-xam mu leeralal ko ko waaje bëgg ko ba dimbale ko jox ko milliards yooyu ngir mu mën a def lu baax <coughs> doomu aadama boobu nag bu xamee ne ajjuma gannaaw bu mu julli ji lay dajeeg waa ji day tëdd rek ba ajjuma jot mu dem julli ji te wóor na dana dajeeg waa ji ndax yàllaa ko dogal wóor na ne danañ waxtaan ndax yàlla ko dogal waa ji dana koo jox de waaye nag ñàkk xam gim ñàkk xam moo tax mu jug samedi ne dana lijjanti miliyaar ya ngir lim bëgg a def dana dox ba sonn du sotti de fu mu dugg du mën a nekk bu ko defee nag mu ngay tawat di xaste rek diw wax naa ko dimbale ma mu bañ diw sàkku ci moom defalul ma diw nii diw naa fekk waxtu wi jotagul yàlla dogalul ko te yàlla dogalul nag diw mënu ko def bu dimanche dana def lu ne waaye du sotti rek la wax de ne waxtu wa jotagut lundi noonu mardi mercredi jeudi ajjuma nag bu jotee si suba gi lu mën a lijjanti du sotti waaye buy waxtu bi jox nag yàlla yóbbu ko mu julli ji moom julli ji foofu dana ko def ndax yàlla ko dogal bu julli jee foo mu dajeeg waa jooju buñ dajee foo ñu waxtaan waa ji foo kontaan foo mu yëkkati alal jox ko. mu ne waaw kay diw moo yàlla di a baax kii mosuma koo xam dajeeg moom benn yoon rek mu defal ma nangam fekk noonu la ko yàlla dogalee woon bu ko yàlla dogul dooni du a defal dara kon ñàkk xam gi moo tax ñuy sabablu di xëy di wut waaye buñ xamoon kañ la ak naka la dañuy noppalu rek toog benn place boo waxtu bi jot wërsëg bi dana ñëw moom rek laa wax de waaye kañ la ak naka nag kenn xamu ko yàlla rek a ko xam moo tax ku nekk da sabablu rek waaye ne la wóor ne la lu la yàlla na muta jox doo ci mën a jot kon yàkkamtik wërsëg bum tax mukk nga def lu xaraam def lu bon mayewut wërsëg de yonentu nee bakkan du dee mukk te wërsëgam jeexut ci kaw suuf kon nit ñi dañu ragal yàlla te wut wut bu rafet rekk la nekk fa yàlla kenn du ko am ci mooy ko addaabatu maa dabb mooy la jukka na laa waji àdd ci kaw suuf si aw kullu dabibin wala lépp luy dox ci suuf rek de lépp luy dox kon sawaaw moo xam fil bari ci jéeri ji mooy suuf si aw fil baxri wala ci géej gi daabba mooy lan <clears throat> mooy luy dox ci kaw suuf wala nga ne daabba mooy lépp luy dox rek moo xam ci suuf la wala ci géej amul benn daabba nag illaa alallaahi lu may war na yàlla risquhaa wërsëgam kenn ku nekk sa wërsëg yàlla la war illaa takafala lu may war lu na allah yàlla tabaaraka bari nii wa taala kawe na bi risqihaa ci wërsëgam fadlan nga neen la min wu jugee ci yàlla tabaaraka bari nii wa nit ñi lu ñuy bari bari kenn ku nekk li nga war a am yàlla programme na ko rek laa wax de <clears throat> xanaa gisoo ne léegi-léegi nga yilif nit dundam nekk sa loxo mu reer reer bu gën a neex sa reer bi rek laa wax de ndax yàllaa ko wërsëgal loolu loolu xam nga ne jógewul ci yow kon kenn ku nekk rek sa wërsëg yàllaa ko gàddu bis bu nekk li nga war a am loolu rek ngay am waataa dikk na bi siixati ala ci tëgginu ala mu mel ni dafa war yàlla wallaahu yàlla tabaraka bani wa taala kawe na mustahilun aji jomb la ne kono mu nekk war seyun dara yàlla dara waru ko walakin waaye nag xay damina ba nga xamee ne warlu na moom yàlla arzaq ne jaami woo karimun ku tedd la yaxlifu du wuteeg wax dahu ataa ci la andi bi siixati ala di tas daada ngir mu dolleeku siqatun bi wax di ci déwénam tabaaraka bani wa taala kawe na yàlla dégg nga dara waru ko waaye dafa warlu nag wërsëgi jaam yi kenn ku nekk ci jaamam yi rek warlu na wërsëg la war a jox te moom ku tedd la du warlu wërsëg ba pare bañ koo joxe moo la waral nag mu indi baatam ala ngir nit ñi gën a am confiance gën a hóolu ne wërsëg wi ñu war a am yàlla dana leen ko jox moo tax bu kenn def lenn ngir wërsëgam yokk du ko yokk ndax sa wërsëg yàlla pare na li ngay def daal def ko te yàlla tax jaam bu xeewoo bu muusee yëngatoom yëpp da yëngatu ngir yàlla rek laa wax de waaye du yëngatu dara ngir xam dara ndax la nga war a am yàlla dogal na ko ba pare kon jërëtul nag dinaa fekk ngir am ko de loolu la yonent doon wax sallallahu alayhi wa ba daf ne ngeen sàkku seen soxla yi ànd bakkan bu tedd maanaam am soxla jërut toroxal sa bakkan ndax mu ne mbir dafay daw ci ndogal yàlla de du toroxlu moo lay may du mel ni nga war a mel moo lay xañ kon même boo amee soxla ci doomu aadama it bu tax nga toroxal sa bopp rek laa wax de melal li nga war a mel dégg nga de mbir yi ndogal la li yàlla dogal rek mooy xew te lu yàlla dogal nag kenn mënu ci dara zakara tudd na moom borom bi subhanahu wa taala anna daabatin ne lépp luy aji jukkat fi àddi suuf war wërsëgam alallaay war na yàlla tabaraka barni wa taala képp kuy dox ci kaw suuf rek wala ci géej gi xamal ne sa wërsëg yàllaa ko gàdd <coughs> bul jaaxle faala haza boo sukkandikoo ci lii moo tamu do ali sukkandiku waaye ñuñ sunna ala an na risque mooy ne wërsëg xismaane ñaari xaaj la ñu jàpp ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom jàpp nañ ne wërsëg ñaari xaaj la xalaalun wërsëg wu aji dagan wa xaraamun ak wërsëg wu aji xaraam rek laa wax de wërsëg dana dagan dana xaraam ndax wërsëg mooy li nga jariñoo te léegi-léegi ñu gis ne nit dana jariñoo lu xaraam ndax dana sàcc xaalis lekk ko wërsëgam la ga waaye nag dafa xaram de dana liggéey jariñu war wërsëgam la waaye dafa dagan de moom la gaa di wax ne sàcc bi dafa yàkkamti rek dégg nga ba andil boppam bàkkaar waaye bu teewoon lam sàcc dana nekk si moom rek laa wax de li ànd naa ndax ñun naraa gis na ne insaan doomu aadama yéen tafe muy jëriñu bi ci mbir xaraam in lu xaraam mu data xayaati di rek dundam la muy jëriñoo dafa xaraam ah loolu boo ne du wërsëgam wërsëgu keneen la nga ne ah kon nag yàlla gàddulu nit ñi seen wërsëg ndax wërsëg wa diw war a jëriñoo diw sàcc na ko jariñoo ko kon su boobaa weddi nga yàlla de yàlla def ne kenn ku nekk moo la gàddul sa wërsëg te danga ci jot waaw nag ki lekk alal ju xaraam alal ju xaraam jooju wërsëgam la waaye nag dafa yàkkamti ba def lu tax mu am lekk yàlla de loo naa bu ñu waxoon inna zalika naka alal ju xaraam jooju lay sa nekkut dégg nga bi risque di wërsëgam la xaalafa kon mu wuteeg al aaya te aaya ji yàlla def ne kenn ku nekk moo la gàddul wërsëgam kon kenn du mën a lekk wërsëgu jàmbur su nit sàcc alalu jàmbur nag lekk ko ñaara mën a am kam moo mën a alal ja alal jooju wërsëgam la waaye jëriñoo war ko rek laa wax de kon su boobaa yàlla gàddootul wërsëg yi ndax mu ngi jaxasoo wala nga nekk ko sàcc yi loolu wërsëgam la su boobaa doo ci mën a teg lu mooy wërsëg wu xaraam la de kon wërsëg am na wu dagan ak wu xaraam wa idaa kaana bu nekkee haazaa lii risquhu di wërsëgam moom mi def lu xaraam alim naa xam nañ an ne moom risqul wërsëg la xaraam bu xaraam de kon wërsëg daal am na bu dagan am bu xaraam yàlla ñu jox bu dagan ba te musal ñi bu xaraam ba de isan kon kullu maa daqala lépp lu dugg fi yadil insaani ci loxo doomu aadama won tafa mu jëriñoo bii ci moom fo wóolu risqu wërsëgam la rek laa waxee sawaawun moo la am xaraamun wala aji xaraam la lépp lu doomu aadama jëriñoo daal loolu la moo xam loolu mu jëriñoo lu dagan la wala lu xaraam la de fële a li moo tax yasaluna ñuy ñaan allah yàlla tabaraka barni wa taala kawe na risqa wërsëg al xalaala bu dagan loola waral nit baax ñi bu ñuy ñaan yàlla dañu ñaan yàlla wërsëg wu wu dagan <coughs> yonentu daan na ko ñaan wa yaalamu dana xam moom yàlla mustaqarraha saxawaayu saxawaaya ji jukkat jooju mooy maskan waa dëkkuwaayam fi duniyaa ci àddina awi sulbi wala ci ndiggal baayam rek laa wax de bakkan bu nekk fa muy dund ci àddina yàlla xam na xam nga am naa jumtukaay yoo xam ne foo mën a nekk rek daf koy signaler sa téléphone bi yàlla nag waxtu wu nekk fu nit ki dëkk ban dëkk la ban quartier la ban kër la fu nekkee ak ban barab ci kër ga la nekk dafa toogam dafa tëdd dafa taxaw yàlla nga koy xam waxtu wu nekk fi nga nekk yàlla xam na ko de moo tax mën ngaa nëbbu ku ne ba mu des yàlla su fekkee nag am nga dof dof gu toll nii mën a ragal mbindeef ni yow mën a ñemee moo yàlla defal rek laa wax de yàlla kenn ñemoo ko danaa dajeegut ak moom ku ñemewut gaynde ñemoo dugal sa loxo si sawara ñemoo jël jaasi di caw say bopp te yooyu di mbindeef rek seen lor àttun na ko kon boo ne nga loolu yàlla waxoo dëgg rek laa wax de foo mën a nekkee la koy xam bal jamono bi nga nekk sa ndiggu jur sax yàllaa ngi xam ne toq ma nuyu sàngam ci laa war a bind diw sàngam mu ci ndiggal góor sàngam fa mu nekk ci ndigg ga ak nam placé oo ak dégg nam war a yëngatoo ba mi dem ci biir ak jigéen ba ba mi nekk nit ki lépp yàllaa ngi jënd ak moom <coughs> loolu mooy waaye dana xam mustaqara sax waayu aji jukkat jooju wa mustawdaa ak barab ba mu ko dénk de baandal mawti gannaaw dee wala nga ne aw fi wala ci biiru yaayam bis boo génnee àddina fañ la war a denc yàlla xam na ko moom bu yàgg ma ngay jën ak moom buñ la fa taajee yàlla ngi lay gis yàlla ngi lay seede ngi xam dégg sa lépp xéwal yi war a fekk dana la ko jox waaye bu dee lor la fa war a fekki dana dal sa kaw rek laa wax de kenn mënu raw yàlla koo am yàlla it sa xel war naa dal koo xam ne boo nekkee sa biiru yaay mu ngi boo nekkee sa ndigal baay mu ngi janoog yow nga nekk sa biiru yaay mu ngi janoog yow ngay dund ci àddina foo mën a nekk fàttewul la nga dugg sa bàmmeel fàttewul la ko bu la bëggee jox dana la mën a jox waaye koo xam ne boo tukkee gisatul la xamatul looy dund boo dee xamatul ci yow dara kooku xam nga ne boo wéedoo ci moom fuuti nga rek laa wax de yàlla xam na nag fa ñuy dénk doom aadama baax moo ci gannaaw bu mu dee wala aw fi rahimi wala fañ ko dénk ci biirab jigéen yàlla xam na ko de jigéen dañ koo dénk doom ji rek waaye doom ji dëgg doomi bàyyi ji rek laa wax de ndax mën ni bi ci góor gi la nekk waaye nag yàlla mën na koo dénk jigéen ju nekk kon doom bàyyi ko moom moo ko jur bàyyi nag kam takk rek kooku la koy dénk dégg nga ak kum mën a takk rek njabootam njabootam la ñooñu rek lay jur ñax ñoom ñoom la yàlla programme ci moom de léegi-léegi sax yàlla ci xereñam dégg nga doom yooyu mu juddoo ci yenn jigéen nga takk yeneen jigéen du la ci may doom yonentu wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ba muy takk Khadija mu ne yàlla moom na ma war sa gën njaboot xañ ma njaboot ak ñeneen de jabaram mi lu muy bëri bëri mënut am ak ñoom njaboot lu mooy Khadijatu rek laa wax de xanaa ak Maariyatu Xibtiya loolu di war ne doom ji doomi bàyyi la fu ko yàlla neex na mu dénk ko ko de jigéen ju ko neex mu dénk ko <clears throat> fi kitaabin mu ngi ci téere mubiin bi aji leer lii lépp yàlla xam na ko te teewul bind na ko ci lawul maxfuus dara du ko ëmp wallaahu yàlla tabaaraka bët ne wa taala kawe na al mutakaffilu aji warlu bi risqi ci wërsëg wërsëg moom bu leen ci jaaxlee yàllaa ko warlu dana leen ko jox bëri na ku yàkkamti wërsëg dox ba bëgga dee dara ndax yàlla dogalut woon ci jamono jooju ne dana ko am de bëri na xam ne gertu sax wërsëg wa wërsëg bi di ko dikkal ndeyjoor ak càmmooy kaw ak suuf guddeeg bëccëg de lam ca am sax moom xam na ne moom liggéeyu ko ndax loolu la yàlla dogal ci moom laa yaxfaa du nëbb alay ci moom shay'un dara fi di suuf si wala fi samaay du caagan ci asamaan yàlla moomu dara nëbbu ko mu ngi jënoog ñëpp kenn ku nekk lam la war a jox dana la ko jox te yaalamu dana xam mahalla kulli shay'in wàcc waaye lenn lu nekk barabu lu nekk xam na ko minal maxluqaati ci mindeef mindeef mu nekk fa mu nekk yàlla xam na ko xam na mahalloo barabam fi dunya ci àdduna wa mahalloo ak barabam fi aaxirati ci alaaxira xam na mahalloo barabam fi sulbi abi ci ndiggu baayam wa mahallu ak barabam fi rahimi ummi ci biir yaayam wa fi xam na barabam ci dundam wa fi xam na barabam bu dee rek laa wax de loolu lépp yàlla xam na ko xawma ma ku lay fàtte waaye du yàlla yurwaa danañ nettali ngir dëggal ne wërsëg ci loxo yàlla la nekk bum la taxa def loo waru def ba mukk نيت لنا موسى انا موسى علي انك مو صادق قول وسلام مج لما بعثوا بمكو يونيك الله يا ليلى فرعون جمج فرعون وقد تركت بين الو جبوتم في تلك الحالة تي بو ملكان بو متي تركهم بين لين في الفراتي تعلبا دنگرك لا وقد نفست تي وسنا زوجته صنام fa ta'allaqa mu aju xalboo xolam biim ci ñoom soxna ci wasin na ma ci àll ba di liir bu tooy xep yàlla na ko ba fi sa njaboot gi laax nga dem mooy na ak i ñooñam kayfa ya'ishuuna ma ngay watasaala ma ngay laaj nag kayfa ya'ishuuna naka la ñuy dundee baax doo gannaawam mu ne doom ju ndaw jile ak soxna si wasin mënul boppam dara waaw man naka la dundee sama gannaaw rek de bu ma demee di xooy Moussa eh, di xooy Firawna baleen fi man nañoo sànku de <clears throat> la ma arsaloo ba mu ko yónnee allaahu yàlla ilaa Firawna jëm ci Firawna fa waxaa waxi mu dóor bi ansaaw ci yetam ba alxajara xeer wa Moussa jaaxle na ci njabootam bam mu ci njabootam nag yàlla ne ko jëlal xeer wi rek nga dóor ko ci suuf sa xet kon dóor ko ci xeer wi fa dara ba mu dóor alxajara xeer allazi bi nga xam ne amaam moom ma ngi kanamam fekk am na xeer wu nekk ci kanamam mu jëlee xet wi rek daal di dóor ci xeer wa fan falaqa mu daal di xar fa izaa bi saxratin ci mbetteel ndeke ma nga gis ab doj fa mu digal ko moom yàlla bi dar bi aa ci dóor dojoo ay ba tey fa mu daal di ko dóor fan mu daal di xar fa bi saxratin gisaat na beneen xeer xeer saanitin bu ñaareel comme mooy ñetteel ab xeer la gis dóor ko beneen xeer feeñ mu dóor beneen xer feeñ muy ñetti xeer faamara mu digal bi da bi a ah, yàlla na ko dóoral xeer woowu fa dara ba mu dóor ko faysa bi duuratin si mbetteel gis na ab sax sawiratin bu ndaw sax wu ndaw fi fammiha nekk na ci gémmañu sax woowu baadul xasaraati lenn ci yent yent yi mooy rab yi dox si suuf asaxiyati yaa ji ndaw tàkkulaa ah, sax woo mu ngi koy lekk هتم تلابم فيس بطنو بيرم فقالت سخبنا إن أنك ممتحمر مني سنت الله يلا الذي بها قمنا لم ينتهى فاتوركو ويتمون في سخرة منك دوت في سخرة كيب دوت في سخرة كيب دوت لم ينتهى فاتوركو ولم يجعل تريري مع الله بربم علم قمنا موسى موسى أن القادر أن يعلم أجاتا على إتهام هذه الدودة تلاه البلئ sax qaadirun aji attan la ala itaami ahlihi ci leer njabootam fatma an na mu dal baaloo xelam wa zaaba mu dem ila firawna jëm ci firawna wa ma tazakkara fàttaliku wut ahloo njabootam hatta halaka ba ni muy dee firawna firawna baale arbayna sanatin gannaaw sanatan gannaaw ñeent fukki at Moussa yàlla daf ko yónni ci firawna fekk doomam jaa ngi wasin soxnaam saa ngi wasin xolam aju ci soxna si muy xalaat bu ma demee ba fi sama soxna sama doom lu ñuy dundee yàlla na ko jëlal sa xet wi nga dóor ko ci xeer wi mu dóor xeer génn mu ne ko dóoraatal mu dóoraat beneen xeer génn mu ne ko dóoraatal xeer woowu mu dóoraat ab sax génn sax woo ma nga yore ay yent yent mooy rab yu ndaw di lekk ba biir ba fees muy sant yàlla mi nga xam ne fàttewul ko te mu ngi si ñetteelu sax fàtte wut ko ñetteelu xeer fàtte wut ko réewu barabam de Moussa xam na yàlla mi mën a leyal sax wii ci àllab kerte nag bii si ñetteelu xeer yii mën naa leyal njabootam de ci la dal nag mu dem di hooy na am na fa ñeent fukki at musul fàttaliku njabootam ndax xam na ne yàlla dana leen wërsëgal yonent yàlla Ibrahima yóbbu na soxnaam Hajara ci àllab kerte na ngel amul ndox amul ñam amul dara mbuus ak tàndarma rek la leen bàyyee soxna si ne ko ndax yàlla la digal lii mu ne ko waaw mu ne ko kon demal yàlla duñu sànq de xam nga ne Haajara moomu yàlla andil na ko ndox moo xam ne moo gën a neex ci ndox yi mu di zam-zam ba léegi nit ñi ci barkeelu ci barkeeb gëm gim gëmoon yàlla andil ko aw nit yu dëkk moom di ko wéttali muy dund ba ni ni Ismaayla màggee ñu tabax Kaaba ga de doom jooju bu doon tey la nga ne foo mu dee waaye yàlla xam na barabam te moo gàddu wërsëgam jëlee fa mu nekk wërsëg nekku fa yàlla dana ko fa andi <clears throat> kon kenn ku nekk na xelam dal ci wërsëg wërsëg de yàlla dana ko jox kaana nekkoon anas wa abdullahi ibnu masud ak abdullahi ibnu masud maa rasulillahi ànd ak yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fa samea ñu dégg taayan ak picc yatakallam buy wax anas ak abdullah ibnu masud sahaaba yonentu lañ dañoo mos a ànd ak yonentu bi dégg picc muy wax xaala yonentu ne hal sami'tuma ndax dégg ngeen maa yaqul li picc mi di wax kon ndeke rab yi dañuy wax moo tax Suleymaan yàlla xamaloon na ko mantiqa tayri li picc yi di wax ñun ñoo xamut li rab yi di wax waaye bàyyi may ñu ngi wax suleymaan alquran nettali na jege na benn melentaan fa qaalat namlatun yaa ayyuhan namlu duxulu masakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuuduhu wa hum laa yashcuruun rabbi ne aywa dugg leen dugg leen seen paxi balaa suleymaan di leen dammati aki i soldaaram yi te ko yëg te ñoom duñ ko yeg kon ndeke rab yi dañuy wax xaala yonent ne al samatuma ndax di maa yaqul li picc mi wax xaala xaala ñoom ñaa ñu ne laa déedéet xaala yonent ne xaala wax na moom picc mi ne yaa rabbi yow borom xalaxta nii bind nga ma ama may gumba waaye nag te man jaay ma ji xiif laa rek laa wax de Fatim ni yàlla nga ma leyal mu ne picc mu naan yàlla danga ma bind ma gumba maa ngi nii xiif xamuma lu ma lekk yàlla nga ma leyal kaala mune hasali huwa mo ma moyli ga kam ne kaalo wono ko hasa tayiru bile picci fara awñu dal ligi si sense jarade tan am jeerel taarat nawna wodakalal mu dugg fi fami tayiri si gimmiñu picci mu foftala mu wonno ko fa chabin mu dal di suur si sense rek ñu gis am jeerel naaw ba ci gimmiñu picci ga mu dugg picci ma dal di ko wonn lekk ba suur de fa takalama picci mu wax ayren ba tey qala wana rasul yonente bi sal allah alih w sallam hal samatuma ndax dégg ngeen maa xaala lan la picc mi wax xaala ne laa déedéet xaala mu ne inna woon na ko moom picc mi yahmadullah mu ngi sant yàlla allazi mi nga xam ne lam yox gis woo lottul wut ko an uti am moom mu leexal ko fi xaalati ci melokaanam boobu te fekk moom dañu la picc mi mi nga ci melokaan bu néew doole bi picc mi nekkee gumba gisut mënut fàggul boppam dara dégg nga yàlla andil ko njéeréel ba ci gémmiñ gi mu daal di mu daal di xewalu picc mi di sant yàlla mi ko defal loolu de <coughs> kon arisku wërsëg alallaay war na yàlla tabaraka ba nii wa taala kawe na nekkoon al Huseyn Huseyn bu naali yaktubu di bind fii say ci jaaseem ne arisku wërsëg maqsumun luñ seddale la Huseynu Ali dafa bindoon ci jaaseem ne wërsëg lu yàlla séddale la mu ne wala xaasiru aji añaan mahrumun kuñ xañ wërsëg la ku añaan daal kooku yàlla xañ na ko dëgg ndax ku añaan lu mu def yàlla yàq ko te wërsëg bi mu añaanee nit ñi teewul nit ñi danañ ko am ndax loolu ndogalu yàlla ci ñoom de dara mënu koo dindi wala baxiiru aji nay mas mu mun kuñ ŋàññi la ku nay te du joxe kooku ku ñuy xas la ndax joxe taxul mukk nga ñàkk kullun lépp fii kitaab mu ngi ci téere mu bii nuñ baaji leer de bay nuñ baaji leer woo téere boobu lawul maxfuus mooy mooy ki nga xam ne xalaqa bin naa samawaati samaani juróom-ñaar wala da bi juróom-ñaar fii ci dati yaaram yi makka ya kaanu nekkoon nañ yes noonu di lem su seen dënd ليستغفوا غي ني نوبوت مي لاي جالا تبارك بني وتعالى كوين دي فبين مو ليرال لهم نيل لين انون موم يالا يالا مودر مقام ما يشرون لا ني نوبو وما يعلنون لا ني فنيال وانو نك موم يالا لي موجي خمن مو بذات صدور لي نك جي دني دني دي وانو نك لام بام ما من دابتنا مو بن اجي جوكر في هذه الصوفي الا عليه لمي ورنا يالا رزقا ورسغم ويعلم در مقام موم يالا مستقرا سخواي نورم كي ديغل بايام ولا سخوايو aji jukkër jooju ci xadis la de wa mustawda ak barab bañ ko dénk ci biir yaayam wala wa mustawda ak barab bañ ko dénk ci bàmmeel ku lépp fii kitaab mu ci ba ji leer de yàlla andi na lay wane ne xam na lépp <coughs> ataa dikk na nag bi xujjatin ci lay fooq daalika bu kawee loolu ku lépp mooy ne woowu moom yàlla laji mooy ki nga xam ne xalaqa bind naa sama waate samaana juróom-ñaar wala da juróom-ñaar fii sitati ayaamin ci juróom benn fan الله ويلا المستحق مؤجي الله للعبادة نيال جام لا بد من ان يكون يتصف مملو بعلم كم كم والقدرة كتن يلا رجل نيال جام كن فوم ام كم كم فوم ام كتن وصفة الآية ملوك الآية وصفة ملوك في وصفه ملوك في الآية كآية المتقدمة بجيتو laa yi jiitu ci la na ne am na xam-xam waaye nag bind gi bind asamaan juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar ci la moom yàlla ne borom kattan la de bayana leeral na kaw noo nekkam aliman daa ci xam tabaaraka bën ñu wa taala kawe na xëy si maa fi sudur li nekk ci dënd yi wa yàlla mu xam na maay suroon lañ nëbbu bu maa yoon loolu ak lañ feeñal wa yàlla mu na mustaqara kulli daabatin sax waaye bépp aji jukkat wa mustawdaa ak barab bañ ko dénk haasa lii yëg fii dana doy andoona yàlla alim aji xam na mu bi kulli seen lépp lu nekk wala budda du mën a ñàkk ngir ñeel yàlla menen ne kono mu nekk xaadiran daa jaattan ay leen ba tey fa bayee na mu leeral andoona moom wóolu la si mooy nga xam ne xalaqa bind naa samaawaati asamaana juróom-ñaar wala daak suufi juróom-ñaar fi siddati ayaamin si juróom benn fan awalaha fan ba ci njëkk al ahadu moo di dimanche waa xiraa fan ba ci mujj aljumaatu mooy ajjuma de samedi nag daf cee féex deful ci dara kon ci bind mbind mu rëy mii kooku xam nga ne am na kattan de waaye nag yàlla bind gi bind asamaan juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar si juróom benn fan daf ci jàngale teey ndax yàlla mën na ko bind ci benn gendeeku teewul juróom benn fan ci la ko bind di la rek def nànk rek laa wax de wakkaane nekk na wala wa kaana nekkoon arshu arsoom arasam xabla xalqi maa njëkk muy bind asamaan ak juróom-ñaar suuf juróom-ñaaral maa ngi ci kaw ndox balaa yàlla di bind asamaan suuf arash mu ngi woon ci kaw ndox xam nga ne lu ndox attan kooku yàlla xajut ci rek laa wax de moo tax arasu yàlla moom néeg yàlla rek ñoo yem kaaba ga dañuy wax néeg yàlla waaye yàlla du fa toog ba mukk ne xaju fa waaye aras tamit gànganaaw yàlla la waa yàlla du fa toog mukk ndax arasatunu di yàlla de balaa yàlla di bind asamaan juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar aras mu ngi woon ci kaw ndox wal maa ndox moomu alaa mu ci gannaaw ngelaw ndox moomu nga xam ne moo enoon aras mu ngi woon ci gannaaw ak ngelaw allahu yàlla tabaraka bari na yiw wa taala kawe na awalu maa awjada lam njëkk amal duratun moo di wurusu dur baydaa bi aji weex waaye moom alxaqatu muhammadiyya mooy xaqatu muhammadiyya de li yàlla bind ci kaw suuf mooy xaqatu muhammadiyya léegi léegi nag nga dégg ñu ne yàlla lim njëkk bind moo ni big wala ñu ne xel wala ñu ne nangam ak nangam waaye loolu lépp xaqatu muhammadiyya lay junj rek de waaw jomb naa yàlla di njëkk amal kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa jomm ci xam-xam dafa jomm ci ab xel. faram fàcc ko nag weer mbóot weer weer weer mbóot la fa nasara mu xool ilayha jëm ci moom nasara haybatin xool ak wegeel fa saara mu mujj minaa ci moom bihaaru géej waaw araqan ngir ñaq yàlla ba mu bindee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def di yoo xam ne fu yàlla melo yeeg tur ci mbaax ak yàlla mu won yonent bi jëmmam ju rafet jooju yonentu daal di de moo tax ba léegi ku la gën a jege yonentu rek moo la gën a am kersa soo amee teraanga la su ko yàlla teralee dafay fuuy waaye nit ku baax su ko yàlla teralee dafay rus yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko woon jëmmam nag mu rus ba ñàq ñàq woowu ci la yàlla bind géej moo tax ba léegi géej yi mënu ñoo dal ñu ngay pérti pérti rek ndax jege gi ñu jege leeru yonent bi sallallahu alayhi wa de demal ci géej rek nga xool danga gis du du nuñ koy waxee sax du si géej gi ni muy dóoree dégg nga mu ngay riit ak yëngatu mënul dal ndax moo jugee ci àqatu Muhammadiya géej googu nag ci la yàlla bindu suuf si dégg nga suuf soosu nag waaw dégg nga furitu géej yi ak dégg nga waa volcan yi toj safara génn yàlla bind asamaan mu dik saxar waye duxaanun mu teqale diggante asamaan ak suuf nag jaww daal di génn falam yesal dañu nag albaxru géej yertaidu di lox min zalika waxtu ci boobule waxtu ilaa yawmina haza bésin bis bi mu ne géej looloo waral dañu di lox mukk ba tey ba léegi géej gaa ngi lox min si dati hay bët yi ngir tefak wegeelal di nga xam ne dara xool na biyaa ci moom aljërilu ci duratul bayda yàlla mi aji màgg ma dégg dafa xool xolab wegeel xaqiqatu muhammadiya yunumtu ñaq ñaqu ci la yàlla bind géej géej nag mënul dal mukk ndax ragal yàlla ba léegi géej gaa ngi lox de kon duusu géej yi ngeen gis muy dóor mënul taxaw benn place kooku ak lox la fa jaala mu def almaa ndox ma alaa matnari ci gannaaw a ngelaw ndox moomu nag yàlla nga ko def ci gannaaw a qabla njëkk bi ne asmaani juróom-ñaar wala suufi juróom-ñaar ci la ndox mi am moo tax ndox moo fi njëkk suuf fa xalaqa mu daal di bind nag asamawaati asamaan juróom-ñaar wala ak suuf juróom-ñaar ci wool gi mu waaw furitu géej wa xalaqa mu al kursi kursi wa xalaqa mu bind arsh aras wala arsh aras nag yàlla def ko fooqa jameen awaay mu nekk ci kaw mboolem mbindeef yi wa mooy tun aji peg mu bi jameen awaay mi ci mboolem àddina mboolem mbindeef rek aras moo peg wow moom aras nag enzamul maxluqaat yi moo gën a màgg ci mbindeef yi al jismaane yoo xam ne jëmm lañ lépp loo xam ne jëmm la rek arasa la gën a màgg daay su ànd jëmee maxluqaat yi ci ne mboolem yi bind yi mun darijatu ña nga dégg ña nga taxañu taxtal arsi ci ron aras lépp lu yàlla bind mu ngi ci ron aras aras nag mooy barabu wàccuwaay yërmande yàlla ba xam nga ne ngaa daje aras guy dox si kaw suuf faqalak mu bine sama wata sama juróom-ñaar sama sama ak suuf ya asaba juróom-ñaar de woo daw maa mu teg leen ramat min xuuti ci gannaaw ak jën yàlla bind na géej mu jugee ci ba tey yàlla ak asamaan mu mën a peeg lépp lu yërmande yàlla dégg nga la yàlla def bu ko defee nag asamaan ak suuf yàlla teg leen ci gannaaw ak jën xuutun jën woo xam ne raasuwa boppam ba wasana bu ak génnam ga yaltaq yaari ña nga dajee genn aras ci faaras jën woowu bopp ba genn ga ña nga dajee ci aras moo xenu asamaan ak suuf moom jën woowu wa zalika alhuutu jën woowu ala qarni sawri mu ngi ci gannaaw ak yëkk ab yëkk ko xenu ba jën ab yëkku jaala def naan huuta jën wa allazi bi nga xam ne xamala hen alawaalima adduna bi kul la lépp na qarne yi mu nekk ci diggante ñaar yi ba jën yëkk wa de fa jën wa nekk wa sawru yëkk woowu ala saxratin mu ngi ko teg ci kaw doj wa saxratu doj woowu biyadillaahi mu ngi ci kàttan ak yàlla tabaaraka wa taala kawe na wa tilka saxratu boobule doj hiya moom almaskuratu mooy lañ tudd fi suurati luqmaan si saaru luqmaan ne yaa bu ne yaa eh yow sama ci ndoom inna naka moom in takuna nekk na misqaal habbatin di toll nii pepp min xaddalin ci xaddal fa takun mu nekk fii saxratin ci doj aw fi samaawaati wala mu nekk ci asamaan juróom-ñaar aw fi ardi wala mu nekk suuf kon nga dee na doj woowu nekkul ci asamaan nekkul ci suuf waaye mooy doj wi nga xam ne moo xenu yëkk wi nga xam ne moo xenu jën wi nga xam ne moo xenu asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar doj woowu nag mu ci kat na yàlla de lamma qaala ba mu waxee fatakun mu nekk fi saxaratin ci doj aw fi samawaati wala si asamaan juróom-ñaar aw fi ardi wala suuf yi juróom-ñaar alim naa xam nañ an tilka saxarat ne boobu la doj lay sa nekkut fi samawaat ci asamaanu juróom-ñaar wala fi ardi nekkut suufi juróom-ñaar de wéyi moom asaxatu mooy doj alxadra bi aji werte werte bi nga xam ne bi xudratiha ci wertaam in sabaqat la cuubu aji samaaw bi la nga ne tali mu ngi ñu méng doj woowu dafa werte wertaam woowu moo ci asamaan ba nga gis asamaan mel ne rek laa wax de faysa araada bu bëggee yàlla yàlla fanaa tukki àddina yaftahu dafay ubbi alxuutu jën wi fam moo gémmiñam moo tax ñi yaakaar ne mën nañ dara ci àddina si dañoo xamul li xew am na yeneen kàttan yu nëbb yu ñu gisut yàlla rek mën a tukkee àddina seen barab yi seen bomb yi ñu defar yépp buñ ko sànniwoon woon it dégg nga kàttan ba mën a laal jën yi ak yëkk yi yàlla bu namul àdduna tukki kenn mënu ci dara loolu moom na ci xeli dal bu yàlla bëggee ubbi tukki àdduna nag yaf taw dafay ubbi alawutu jën yi fa moo gémméñam fa tasiru mu yor albihaaru géej yi kulloo lépp fii fam mii ci gémméñam wa tasiru mu mujj yëpp sandaa ji wow fi asran ci lu gën a gaaw min lamaatin ci benn gendeeku bu yàlla bëggee tukki àdduna rek jën wi dafay ubbi gémméñam ndox mi ndoxu ndox géej yépp daal di dugg ci gémméñam mu naan ko ndox ma jeex tàkk lépp mujj wow ah àddunaa ngi bëgg a tukki nag bu demee ba gisitoo benn géej àddunaa ngi bëgg wakaana mu nekk na arsoo wakaana nekkoon na arsoo arsoo yàlla alal an yaxluqa njëkk muy bind asamawaati asamaan juróom-ñaar walaade ak suufi juróom-ñaar almaahu ndox woowu moom awalul maxluqaati mooy njël benn mbindee fii baada xaqiqatu muhammadiya gannaaw xaqiqatu muhammadiya gannaaw xaqiqatu muhammadiya li yàlla njëkk bind mooy ndox moom lay wax ne wa min al maayi kulla shay'in hayyin afalaa yu'minuun lépp luy dund ci ndox la ko yàlla jëlee wa kawnul arsi nekk ak aras fooqal maayi ci kaw ndox nag laa yaani namuñ ci mulaasaxatu maase nag taqoo nekkul ne aras dafa taqoo ndox mi déedéet walakin waaye nag kaana nekkoon na almaaw ndox mi taxta ci ron wala arsu aras ci kaw yàlla ba mu bindee aras daf koo teg ci kaw ndox ma nekk ci suuf loolu la yàlla namu ci ndox mi mu ngi ci kaw aras nekkul dañoo sasaloo wa maa baynahuma la nekk seen diggante xeeru mawjudin du dara dara amul fa xataa xalaq bi mu bind allah yàlla asamawaati asmaan juróom-ñaar wala ardiin ak suuf yi juróom-ñaar bu maa fii maa ngi nekk seen biir minal maxluqaat ci mbindeef yi moo tax ba léegi ndox moo nekk ci suuf aras moo faree kaw la ca diggante ba ne mooy la yàlla bind gannaaw ga rek laa wax de yàlla bind asmaan juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar bu maa fii maa ngi la ca nekk minal maxluqaat ci mbindeef yi fa jaala mu def allah yàlla adama adama xalifatan mu di wutaram fil ardi suuf xalifa bi yàlla la ci mboolem li yàlla bind waaye ci suuf la dëkk moo tax ñu tuddee ko xalifa bu nekk ci suuf waas kana woo mu dëkkaloo ko fiyaa ci suuf sakkanaha dëkkeen suuf banu aadama doomi aadama ilaa aaxiri daari ba ci mujj ak jamono wal malaayikatu malaayika ya sakkanoo dëkkee nañ asamaawaati asamaani juróom ñaar wa ulul azmi borom dog yi mina rusuli yi sakkanoo dëkk nañ bi ar waayim seen ruhu al kursi kursi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ngeen gis ñaar ñu ngi ko denc màkk foofu la juddoo dëkkun màkk rek la wax de yonent yàlla noox yonent yàlla ibrahim yonent yàlla musa yonent yàlla isa seen jëmm yi ñoo nekk ci suuf waaye seen ruux yi ñu nga dëkk kursi dégg nga wala boog ñoom ñoo dëkk kursi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi moom romb na kursi moom waroo xaatimi anbiyaa yi roob ki tëj yonent yëpp al arsa aras lii mooy aras nag aras mooy rooxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xalifa bi yonent si jamono ju nekk rek kooku mooy arsulaay boo xam ne man koo gis muy dox ak moo tax yàlla buy tu aras def naa arrahmaanu yërmande yàlla ala arsi stawa rahmaanu googu di àqatu muhammadiya mooy moo ci xaras xaqatu muhammad yi lépp ci roxo yonantu sallallahu alayhi wasallam ci la feeñ roxo yonantu googu kuy xalifaab yonantu ci kaw suuf rek ci yow feeñ moo tax xalifaab yonantu saa su nekk moo kawe mbindéef yépp moo yëngal lépp kawe googu nag waaw ak peeg googu dégg nga kawe ak maanaa rek laa wax de waaye na muñ ci jëmm ji roxo gi lañ ci nam وهذا الروح بلا الروح الذي يقمن سكن لكن على عرس عرس هو ملقة محمد يا علاقة محمد روح ينتهي على محمد صلى الله عليه وسلم مو نيو دكي عرس لول ملقة محمد يا حقة محمد يا مو تبكي عرس هو ممانا معنى الرحمن يا الله استوى يمون على عرس عرس الذي يقمن أتابع صلى الله عليه وسلم ما كم يقولون يفهمون فهموا تدعون كم من ليك الروح روح خاتم الأنبياء جت جنونتي وهم الذي ما بين خلال استواء وانا على عرس عرس على عرس عرس موت عرس بوكو جالن بيرك من شرع شريعة جانغ عرس شرع ظاهر بي مو شريعة بي باطن بي مو عرس فلتمت باطن بي mooy roo mooy roo yonent bi xaqatu Muhammad yee zahir ba mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de loolu de mooy aras arruuxu xaatimu ambiyaay wa lazi istawaay mën al arsi ci aras wa arwaa ulul azmi ruuxu bo yonent yi borom dog yi mina rusuli ci yonent yi alal kursi yi ñanga kursi yi wa baaqil awaalim yi li des ci àddina bi nag wa maa min amul kenn suñu illaa loolu mooy yàlla na ko maqaamu maqaamu maalumu buñ xam kenn ku nekk suñu am na fu ko aras boobu nag mooy itam aji peeg la mu di jëmee naa awaalim mi ci mboolem àddina bi ndax xaqatu muhammadiya peg na lépp waaye peg gim peg lépp roxo googu di roxo yonentu nga xam ne moom moo njëkk a xam dajal lépp peg lépp loolu tekkuwut ne yàlla mën na ko andi muy jëm jëmm joo xam ne feesu nekk boo ko weddee rek xoolal jàngal jibril bu buñ lay jàngal dëgg-dëggam danañ la wax fees na asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar waaye teewul ñëwal la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hadis jibril bi nga xam ne ñëpp jàng ngeen ko tefeesu la waaye du la ci dëgg-dëgg waaye moom feeñut foofu moo tax yàlla buy xebal ci àddina bii ku ëpp àddina daf koy melal suñ melokaan solal ko suñ yére yàlla mën na loolu am na kàttan boobu dara lottuloo ko moom moom la suuf yaa ngi di wax ne walay sa lallaahi mustankirin an ijmaal alama fi de yàlla tëlewut dajale àddina bi yëpp ci kenn alxarsu xaras mooy roxo yonent bi wala nga ne roxo yonent bi moo wàcc ci aras muy zaahiram mooy dun aji fekk la moom bi jamee awaali mi ci mboolem àddina bi de arsu rahmaani arsak yàlla ga wala lii li nga xam ne sakk na dëkk na alxarsu foofu moom rahmatullahi mooy yërmaane yàlla tabaraka bani wa taala kawana ëllëti yërmaane gi nga xam ne dañ na kula seen lépp lu nekk yërmaane googu mooy xaqatu Muhammad ya daanu ci kawaras xëy su am na rahmata ba nga xamee yërmaane gi feeñ waayam al mawjudaat mooy mindee bi moom mooy xaqatu Muhammad ya waaye zahir bi mooy mindee fi wal mawjudaatu mindee kon mbindeef boo gis rek ci ron yërmaande yàlla la nekk yërmaande yàlla moo ko peeg moo ko xamal bu du woon yërmaande yàlla du xam gis nga xarasa ngoogu abbara ci la yàlla wax nag benn raxmaan ne raxmaan googu fawqa arsi moo nekk ci kaw aras mooy yërmaande yàlla ga moo tëje lii ci aras aras googu ci la mbindeef yëpp feeñee li anna masala tilka sifati ndax feeñ waaye boobu la melaw filaawaalimi ci addina bi alati gi nga xam ne taata aas mu ngi si doon aas de yërmaan ak yàlla googu dégg nga feeñ waayam ci mbindeef yi lay feeñ mbindeef yi nga xam ne ñu ngi si doon aas wala aas su aas nag fawqa mu ci kaw mbindeef yi wa charu sharia nag taxta moo nekk ci ron a charu sharia nag maqlubu aas yi mooy jàllal bi nga aas boo commencé ca Chine ga nga am charon nga commencé ca ayin ga nga am arsu kii moo di baatin kii moo di zahir de haqiqatu muhammadiya mooy baatin ba waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy zahir ga de al arsu aras nasala wàcc na ali jëm ci mu ali ci moom alquran alquran aras ci moom la alquran wàcc fa nasala mu wàcc nag ilaa da jëm ci suuf fa saara mu mujj sariya di sariya de ba mu feeñee ci suuf ci la mujj di sariya fa man tamasaka ku jàpp baasa sariya ci bi la sariya taraqaa yëg na nag ilaa zalika ansi ci boobu la aras ku jàpp ci sariya muy dëgg rek xam yàlla léebluwakum yàlla bind na asamaan juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar léebluwakum ngir mu natt leen ay xalaqaw maa bind leen wa maa fii maa la nekk ci ñoom ñaar manaafi'a ñu di njëriñ lakum ñeel leen wa masaaliha ñu di intérêt li yaxtabirakum ngir mu natt leen ayyukum kan ci yéen ahsanu moo gën a rafet amalan ci jëf yàlla bind na asamaan juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ngir xool ki gën a rafet jëf qaala wax na al mufassiru taalifkat ba ne atwaaw lillaahi kan moo gën a topp yàlla la ci yàlla namm de yàlla dafa bind asamaan ak suuf def ci ay njariñ am yum digle am yum tere am yum maye am yum haaye ngir xool kan moo gën a mën a topp yàlla xalaqa bind na laaw yàlla tabaraka ba néew wa taala kawe na jëmee naa waala mi mboolem aalam yi lu wa ngir mun a tool xalqa mbindeef ya ayum kën ci ñoom axsanu moo gën a rafet amalan ci jëf al insaanu doomu aadama imma benn an yakuna mu nekk xasdu jubluwaayam bi lisaani ci làmmañam wa bi qalbi ak ci xolam wa bi amali ak ci jëfam huwa moom alaaxiratu aadama bii asanu aji la niyetan ci yéene waa amal ak bu sa xol alaaxira nga ci jublu sa jëf ji nga jëf alaaxira nga ci jublu sa làmmañ bi it alaaxira nga ci jublu la nga cee wax yow sa jëf rafet na de سيني رفنا أو كان ولا منك قصد وجبل وعام بلساني كلام نم وبقلبي أكي قلم وبعمل أكي جفم الدنيا أدنى فهذا كي سيئون أجنيا ولا عمل أنت جف نكي فرد سيئي دوم آرما بره لنغي وقت سلام يو يونو يالا نكوتي انترس أولا هلا قراء انترس أولا حد نرق مولا انترس لنغي فسق قليل مهم بري أدنى لنغي جف مهم بري أدنى يوكو نياو جف نغي moo tax moom nga gis politiciens yi bu ñuy wax ñu ne seen yoon nekkul ci lislaam ñoom diine ñoom waxuñ ci dara ba boo bëggee jiite sax boo ci dugalee diine lislaam ñu ne la doo bokk xam nga ne ñooñu ñu ñaaw jëf lañ de ñu ñaaw jëf ñooñu nag jëruñ dara <coughs> wéy ma benn an yekoonu mu nekk xas dawu jubluwaayam bi xal bi ci xolam wu moom a duniyaa mooy àdduna wili saani ci laa mañam woo moom alaakati mooy alaakara faada kii woo moom al munaafiq mooy naafiq koo xam ne xolam àddina la ci bëgg waaye boo waxee ci la mañam ne alaakara la bëgg ku koy naafiq rek laa wax rek haada kii aswabu moo gën a ñaaw amalan ci jëf ko gën a bon sax ki nga xam ne moom feeñal na àddina rek la bëgg woy ma benn añee konu mu nekk xas doo jubluwaayam bi lisaani ci làmmiñ bi qalbi ak ci xolam bi amale ci jëfam hoo moom wajulaay mooy jëmm yàlla ja faada kii axsanu moo gën a rafet amalan ci jëf te moom moo nax ñëpp ki nga xam ne lamañam yàlla la ci bëgg xolam yàlla la ci bëgg jëfam yàlla la ci bëgg kooku moo gën a rafet ñëpp jëf kon ndeke ñeenti xaaj lañ xasanun aji rafet amalan ci jëf wa sayun ak ji ñaaw amalan ci jëf waas woowu ak ki gën a ñaaw amalan ci jëf wa axsanu ak ki gën a rafet amalan ci jëf <coughs> yàlla nag ki muy seet mooy axsanu amalan ki gën a rafet jëf te mooy ki nga xam ne yàlla rek la bëgg moo tax sax maqaama ihsaan la jëfandikoo axsanu te ihsaan mooy dem ba yëgatoo lu ma yàlla doomu aadama bu dee làmbañam ak xolam ak jëfam allah xiraale ci kooku ku rafet jëf la rek laa de xasanun amalan la ak jëfam yàlla la ci jublu jëmm yàlla ja kooku mooy ki gën a rafet jëf bu dee làmmañam ak xolam ak jëfam àdduna la ci jublu nit ki nit yi àdduna yi kooku mooy ki ñaaw jëf bu dee nag làmbañ ba allah xiraale ci jublu wala yàlla waaye xol ba moom àdduna la ci jublu kooku mooy ki gën a ñaaw jëf mooy naafiq doomu aadama nag amul benn wéedu waaye gu mën a mu doy ko lu mooy yàlla jëmm yàlla ji daal mooy li nga xam ne soo ko amee ñàkkoo dara waaye lu dul jëmm yàlla ji daal moom soo ko amee xamoo dara ndax lépp loo yaakaar rek xamal ne amul melow yërmande yërmande melo yàlla la ci mbaax yàlla nag mën na koo feeñal ci lu ko neex mu di la wéttali boo sukkandikoo ci loolu bis bu yàlla jëlee yërmandeem nga fuuti rek laa wax de danga mujj wedde da nga mujj jaal boo yaakaaree ne xaalis wala alal li àdduna mooy taar yàlla mën na cee feeñal taaram waaye sukkandikoo ba yàlla rocc ci taar boobu xalal di nekk fitna ci yow nga daal di yàqu xalal jooju bis mën naa ñëw mu jeex nga daal yàqu de. boo yaakaaree sa njaboot seen waxtu mën naa jeex ñu dee wala yàlla def ci fitna sax rocc yërmande ga nga daldi yàqule boo yaakaaree say soxna waxtu mën naa jot ngeen tàqali ko wala ñu dee rek waaw wala yàlla rocc yërmande ga ñuy fitna ñeel la nga daal di fuuti nga yaakaar sa xam-xam yàlla mën na cee réeralee rocc yërmande ga xam-xam ba mujj la alag wala ma rey la waaw nga yaakaar sa kattan yàlla. dindi kattan ga wala boo mu rocc yërmande ga kattan ga mujj la xalak dugal la ci lu lay waaw yàqal rek la wax de kon doomu aadama bu jàpp dara muy wéet waaye lu muy jëmmi yàlla ja bis boo amee yàlla lépp lu mu feeñal yërmandeem boo ko ñàkkee mu feeñalaat ko ci leneen ndax ñàkk ñàkkoo boroom yërmande ga am nga daal ki nga xam ne melo yërmande melo sax la ci moom waaye lépp loo xam ne du yàlla rek xamal ne loolu melo yërmande saxut ca yàllaa ko ca feeñal rek saa ko neexee mu rocc ko kon yàlla yàlla may yàlla ku nekk nag la ngay wut rek ngay am innama al-a'maalu binniyaati ndem mën ngaa wut aljana am ko mën nga wut yàlla am ko te ngaa wut yàlla si jëf gi rek daa am moo gën ngay wut aljana aljana neex na waaye jàng nañ ci alquran ne yërma yàlla moo ko dàq wa ridwaanu min allaahi akbaru kon wut li gën a neex moom la borom xel di def boo gisee lu neex ak li gën a neex wutal li gën a neex ngir maa nag yàlla googu jëmbi yàlla jaa ko dàq de moom la yàlla wax ne lillazina ahsanul husna wa def lu rafet danaa leen fay aljana dolli leen dolal gi mooy jëmmi yàlla ja yàlla dana fay waa aljana aljana diir bu yàgg mu ne ma yokkal leen ñu ne ko ana loo ñu yokkal yow jox nga ñu mboolem xéwal li defal nga ñu nangam ak nangam yàlla nee na ma joxleen leen sama ngërmande beneen yàlla mosalee ngërmandeem ñu gis ne moo dàq aljana fuuf waaw ñu dund ci ab diir yàlla ne ma yokkal leen ñu ne ko ana loolu laa wax de jox nga ñi nangam ak nangam ak nangam ñun kay am na lépp yàlla jox leen jëmmam ja ñu gis ne moo dàq lépp luy neex <clears throat> moom la Sufyaan Kafa doon wuut wuut yàlla ba dee ba muy xarxare gis këram ci aljana mu daal di jooy ne yàlla li ma def lépp bu dee lii mooy sama fay mu di aljana perte naa ñu ne ko loo bëgg mu ne may ma rek ma xool sa jëmm ci benn xoolin man loolu doy na de ñu xool tuuti gis ko ma ngay ree roxo ga daal di génn ñu xam ne am na la mu bëggoon rek laa wax de wala in xulta boo waxee yaa Muhammad yow Muhammad la um ñeel leen innakum nak yéen na ñuy dekkal ngeen min baadi mawti gannaaw dee la yaqulanna dana wax alladina gaa ñi nga xam ne kafaru wedd nañ in haza déet lii illaa sixrun lu mooy muy njabar mubiinun bi aji leer boo ne nit ku dee yàlla dana ko dekkil ñu ne loolu njabar la Muhammad daal alquran ji muy tudd ay njabar rek la xam nga ne dee dekki amut fenn yàlla mi jël toqam ma niyu bi gën a xeebu def ko muy doomu aadama bi xéemee nii bu la waxee ne doomu aadama boobu bu dee mën na koo dekkil nga war ko gëm <clears throat> alkufaaru éféer yi li kufriim ngir weddi giñ weddi way naa dim ak dëgër bopp giñ dëgër bopp isa waadum bu leen digee annabi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waan la moom mu xamal leen annahum na ñoom sayu bansono danañ leen dekkil baadal mawti gannaaw dee yaqulun ña ngay wax naan haatal quran alquran ji alladi bi nga xam ne yantiqu dana tudd bil baasi ci dekk innama woo nag moom sixrun jabar la mu biinun baaji leer muhammadun muhammad saahirun aji njabar rek la wal quran al quran sixrun jabar la ñoom ñooy nar de fële azali moo tax an koroo weddi nañ al bansa dekk istaxrabo tumurankeloo nañ al ihaadata dellu wallazi ki nga xam ne badaa commencé na alxalqa mbindeef alxalqa bind awalan ci njëlbeen xaadunoo jaatal la moo la ihaadati ci delloo ko inde kulli xaqalin ci képp ko am xel képp ko am xel xam ne ki keree sos lu dara am fu dara nekkut kooku mën naa dekkil de <coughs> defar lu yàqu daal soso ko gën a jafe wala ina xar naa nem yéexee ne ñaanum ci man azaaba mbugal ga ilaa ummatin ba ci ay waxtu aw xaatin ay waxtu maalu dara luñ liim la yaquloo ñu ngi wax naan maa yàbbisu ana lu téye mbugal ga kufrun weddi la wala kufrun ci gannaaw weddi yàlla bu yéexee mbugal ba ab maas jàll mu war koo wàccee ci beneen mas gu ko soob wala ab waxtu jàll yàlla wàcce woon mbugal ga ñu ne waaw mbugal mi yonent di wax moom ana lu tee mu ñëw ba léegi weddi ci gannaaw weddi de xaaloo wax na ñu ne alquran naka alquran seexlun njabar la wisa xara bu yéexee allah yàlla anul ci man azaaba mbugal ngir yërëm leen yàquloo ñu yow naan maa yax bisu ana lu tee an azaaba mbugal ma xani nuzuli ci wàcc allah nazara lu teem wàcc lu teem mbugal mi ñëw de loolu la ñuy wax al ummatu jamaatun day dana firi mbooloo naas si nit ñi isa ansu buñ dundee zamanan jamono yakunu mu nekk xarnan di maas buy dan xadaa bu jeexee xarnun maas wala azabu te mbugal ma lam yanzil wàccut yaqulun ñi na inna aada al mi lam yaati dikkut ayu seen ana ban mbir yaa bisoo ko téere moom la yàlla waxoon ca laay ji ca gannaaw ne fa ah nu ko waxee sax maa hmm? daa mu ne lan la ñuy laajte ci mbugal mi lu ñu yàkkamti ci mbugalam yàlla maanaam ñu ngi yàkkamti seen musiba de yuriduna dañ namm bi zaalik ci loolu takziba nabi weddi yonente bi sallallahu alayhi wa qaala wax na taala yàlla mu koy am ne alaa yëgal yow ma bis ba leen dikkal moom mbugal ma lay si nekkul masrufan dinañ tourné anum waris leen yàlla ne mbugal mi ngeen yàkkamti di ko laajte bis bu ñëwee du ngeen ci mucc bayee na leeral na lawum ñe leen ana azaba naka mbugal ma wéy ni stenjalowu dina yàkkamti nañ ko sa yaati dana dikk yamoon bis woowu moom isaata bu dikkee xëy mun dafin du jañu de maanaam dara du ko mën a dindi tabbi waa waaqa wàcc na biim ci ñoom maa nga xam ne kaaroo nekkoon nañu station di yejji bi ci moom ñaawal gën loon ñaawal yonent seen kaw an waaw istizaay xeeti ñaawal ya allati yi nga xam ne yestaasiyoona danañ ko ñaawale bi nabi yonent bi si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seeroon danañ gis mu jëm enda nuzuli azabi si mën a wàcc mbugal ma de bu mbugal ma di wàcc daal danañ gis waaw ñaawal gañ noon ñaawal yonent bi danañ gis musiba mu dal seen kaw yàlla teg leen mbugal muñ mun dékku de wala in azaq naa ne mosal nañ al insaana doomu aadama min naa tukkee si ñun rahmatan yërmande ni ki xeneen koom wasiatan ak wér-gu-yaram doomu adama buñ ko mayee koom alal ju bëri ko wér gu yaram waaw ma ngay bàkku nag su ma ne sax naa topp ñu nocci ko minu moom innoo nag moom la yeewu sun naagu waakoon la aji naagu waakoon la kafoorun weddi waakoon la de su yàlla jëlee alal jooju jël koom jooju doomu aadama bi dafay naagu découragé wu jàpp ne dara doo su baaxati mujj weddi yàlla far wala mu weddi xewali yàlla de du santati mukk allahu yàlla tabaraka ba wa taala kawe isa mën na bu xéwalee ala insaani si doomu aadama beneen ku ci yéeféeri nag lii la ci yàlla na mu bi neematin ci xéwal faataaw mu jox ko keneen keneen koom wasiyaatan ak wér mu nga féttirlu bew di yàq ci kaw suuf wasala boobu bu ko réclé tuuti que neemate boobu la xewal xewal baadu gannaaw ga yakun day nekk al insaanu yéeféer ba xaanitan daa ji naagu mi rahmatullahi ci yërmaande yàlla tabaraka ba nii wa taala kawe na shadidal kufri daa ji tat yàlla am na sax ñoom ñoo xam ne bis bu ñàkkee wala ñu am doom ju dee wala ñàkk ko ña ngay yàlla di ko ŋàññi wax ju bon ju ne ko wax yàlla bu mbir mi méttee sax ñu xaru far benn yoon noonu la xeeféer mën naa ñàkk jafe yu bëri dal ko mu xam ne yàlla tegul ko ko ngir mbugal ko daf ko koo teg rek laa wax de waaw ngir yërëm ko ngir bàkkaar yi mu a faaral wala xewal gum ko nara andil te jëfam eggul ci xewal googu yàlla teg ko natu boobu mu muñ mu yéega ko de waaye xéeféer moom bu ñàkkee daal benn mu xaru wala ma ngay saaga yàlla wala ma ngay toj seetu ya di yàq këram waaw kum romb waaw boo boo ko boo ko boo ne ko sa bët bi suufa ngi sax mu dóor la fetal nga dee noonu la xéeféer mel de <coughs> yakun day nekk al insaan xéeféer ba xaalitan daa ji naagu min rahmatillahi ci yemaane yàlla tabaraka ba nii wa taala kawe na ci di dal kufri daa ji tajil taryéefé rek laa wala yaqulu ma ngay wax naan inna laa naka yàlla maataani ma cheyan dara ba xam ngeen ne ba léegi am na ñoo xam ne bu ñàkkee yàlla lañu saaga ñoom problème bu ñu xam rek dal ci kaw yàlla wala in asax naaw ne mosal nañ ko nag naa ma xewal banda dara gannaaw ak ñàkk faqri ñàkk wasi latin ak jafe-jafe masatu goog laal na ko la yaquloon dana wax ne zahaba dem na sayiatu musiba yi almasaayib musiba yi an ni waris ma bu amee weddi yàlla bu ñàkkee nag bu ñàkkee weddi yàlla boo amee naan a ah, problème yi jeex na du sant yàlla du ko gërëm de kazalika nako noonu ida zahaba nem dem na ashadaidu jafe-jafe yi yaqulu mu naan zahaba dem na an nii ci man almasaayibu musiba yi wa fariya mu bég bi ma bi yeddi ca la nekk ca loxoom wala yata waqon du seentu mukk zawaalu ak dañam ay ren ba tey de wala yaskuru du gërëm allah ala tabaraka bani wa taala kawe na xamul ni loolu ko yàlla jox yàlla mën naa mën na koo jëlaat du gërëm yàlla du ko sant de inna woon na ko yéeféer boobu la fariwun aji puugarewu la la fariwun aji bég la batirun aji kontaan la fa faqurun aji puugarewu la naas ci nit ñi bi maa utee ci lañ ko jox li ko yàlla jox saa su nekk man cee ndamu di bàkku ci kaw nit ñi maa am nangam maa mel nangam illaa lu mooy laakin alladina ña nga xam ne sabaru muñ nañ ala daraay si jamono jafe-jafe waa amilu ñu def asaalihaati yu baax ya fi naamaay si jamono xewal ñu ñooñu la gaay moom lawum ñeel na leen maxfiratun njéggal wa ajrun a tiyaaba kabirun bi aji mag bu leen yàlla denc demal qiyaamate amaa ñi nga xam ne buñ ñàkkee dañu muñ waaw sant yàlla góorgóorlu rek xam ne àddina moom waaw neex ak naqar la lum naqari naqari dana mos a neex de buñ amee nag ñu ngay def lu baax di saraxe waaw wàccee seen bopp xam naa ay doom adama rek lañ yàlla leen wërsëgal ci biir nit ñi ñu daal di gërëm yàlla ñooñu moom yàlla dana leen jéggal seen bàkkaar yi ñu dana leen fay-fay gu mag <coughs> kenn gënut am saas ku yàlla may àdduna ba pare mu wut alaxira kooku dana boole ñaar yëpp rek laa wax de kooku xewal la ci kaw xewal xam nga àdduna am alaxira àdduna bu nekkee ci loxob ku baax yàlla mataan asanan la ko tuddee xéwal gi aji rafet de ŋàññi gi ñuy ŋàññi aju àdduna yëpp mooy mu nekk ci loxob ku bon ndax dana ko xalak de dana ko sànq amal insaan waaye doomu aadama allazi bi nga xam ne isaftaqara bu ñàkkee sabara muñ na wa isa wajada bu amee neematan xéwal chakara gërëm na laa yàlla tabaraka bani wa taala kawe na foo laay ko ñooñu la gaay allazina ñoo ñi nga xam ne lawum ñeel na leen maxfiratun jéggal li zone bi mu ñeel seen bakkaar waajur nag tiyaaba kibirin gaa ji mag wow moom aljanatu mooy de doomu aadama boo xam ne bu ñàkkee muñ boo amee sant yàlla jaamu yàlla ci xam-xamam ga ñooñu yàlla dana leen baal seen i jox leen fay gu mag moo di aljana <clears throat> falan laka maana yow yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam taarikun aji bàyyi nga baada maa leen la nga xam ne yu ko wax yu ilayka iyaaw moom li taxawu in ngir doyadil gi doyadil bii ci ci moom wadaay xuna ji xat la ci moom saduru ko sa dënn de an yaqulu ñu wax ne law laa un si la lu tee ñu wàcc xale ci moom këntun nam mu muy alal ju bëri aw mu dikk maa wax nag malakun malaaka rek laa wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam dangay ragal la ma la wax yu boo ko jottalee xéeféer yi duñ ko jëfee tax nga bañ koo jottali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéeféer yi wax ne yow da ngay xas suñu yàlla ji di ŋàññi suñuy waajur yi di dox lool suñu xel yi kon ñun loolu duñ ko mën a dégg ba mukk bu alquran wàccee nag ŋàññi leen rek yonentu dafay jaaxle naka leen naka la leen koy waxee ndax xam na ne bu leen ko waxee ak kéeféer rek la leen yokk te yàllaa ko wàcce yàlla moom faaluwut yàlla wax li war a wax nit ku bon a gën a bon dafay def lu bonam ba pare soo ko waxee mu ne dag maa xas <coughs> fekk waxoo li mooy lam def yàlla ne ko ndax dangaa bëgg a bàyyi nag lenn ci lañ la wax yu ndax ragal ñu doyadal ko ndax sa dënn dafay xat bi tilaawati ci jàng loolu alayhim ci ñoom ndax da ngay bañ jàng wax yu gi ndax ragal ñu weddi ko xaata ba wax naa ko nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon asafu di méttalu di méttalu li kufri xaw mi ñeel weddi nitam yonentu ku yërëmoon yaarami makka yi lañ ku bëggoon waa Quraysh moo tax weddi giñ ko weddi daf ko métti lool ndax xam na ne seen alkande la wal kufaar yi féeri nag yaatuunu danañ ko dikkal waaye station ñuy yejji bii ci moom ña koy ñaawal nag yaquluna ñu naan ko aatina andil ñu bi quraanin ci alquran laysa goo xam ne nekkul hadal quran bi la alquran allazi gi nga xam ne yestu mu dafay saaga alaatina suñ yàlla yi waye subbu naa mu ñuy xas waye subbu muy xas abaana suñu bàyyi ñun xam nga ne loolu duñ ko nangu de wax naa la nit ku bon a gën a bon dana def lu borom ba pare nga wax ko mu ne rek maa xas <coughs> waaye yàlla moom faalewul loolu moom moom moom ñëpp moom faalewul kenn moom la bon la def daal dana ko wax ñu ne ko aati andil bi quraan ci alquran aaxara beneen xeyra haza budul bi haza bi laa yumkin du jàpp ne ana naa naka ñun nuuminu danañ gëm bii ci moom moom abadan ba faw ñu ne ko alquran ji moom mënuñ koo gëm wa rasul yonent bi bi dana wàcc ci moom alquran walquran wayestu mu muy saaga muy wayestu mu muy ŋàññi moom alquran alihatum seen yàlla ya woo moom yàlla mu dana xam moom bi tabliq haza bu jottalee lii yes daa doon dañuy dool dañuy yokk istizaan ñaawal ko rek wa tahawunan ak doyadal bil quraan ci alquran léegi-léegi laay wàcc nañ yàlla yi yàllaay xéeféer yi bu ko defee yonentu xam na bu ko jàngee dañ koy gën a ñaawal gën a doyadal alquran rubbama yadiqu amaana mu xat sadro dëndam bi tabliqi baadil quraan yi si jottali leen ne alquran yi dem jom si ñoom su ko defee nag balaa jottali loolu dënnam dafay xat lool xasaran ngir ragal ani taxaawunoo ñu doyadal bii ci alquran huwa te moom laa buddu du mën a ñàkk an yattakifa mu toggoo ahadal amrayni benn ci ñaari mbiri benn mu téye alquran ji bañ leen koo jottali wala mu jottali leen ko dégg nga <clears throat> ñu ŋàññi ko imma benn adamu tabliqi ñàkk jottali huwa te loolu xiyaanatun xor la mustahilatun aji jomb la ci xaqil anbiyaa yi ci xaqi yonent yi adamu tabliqi ñàkk jottali maa yumkin ko mënul nekk wa bu jottalee yejlis dana am alisaayata lor min qibilim bu jugee ci ñoom danañ ko xas danañ ko ŋàññi danañ doy dana alquran ah jottali nag moo gën a moo fa sës foo mi nañu digal ko nag birtikaa bi ak xafit dara rey ni mu toggoo li gën a oyof ci ñaari lor yi alxiyaanatu xor kooku diis na laa sabila di dag yoon ilaa jëm ci moom fi àqi rasuli ci àqi yonent bi sallallahu alayhi wasallam de fal yu balix na jottali nag alquran alquran walaw laqee di dajee nag maa la xeelam dajeeg minum ci ñoom kon li des rek mooy mu jottali jile dégg na ci lu ko naqari rek laa xool mu gis ko ca <clears throat> ab saay saay dafay bëgg def saay saayam ba pare naan booy wax ak man bu mu wax lu ma naqari te lam def kat boo ko waxee mu naqari ko dañuy bëgg nga raay leen tagg leen xas leen te ñoom te ñoom nit ñu bon lañ ña ngay yàq ne ne leen nit ñi defaral ña ngay ŋàññi waaw mbiram yàlla ak ak ne ni na leen ñi tagg ñu ngay ñàkkee teggin yàlla ko yonentum ne ne jox teggin loolu mënu nekk bay laa yomi diin ku bon daal ñu ne la da ngaa bon ku réer ñu ne la réer ku jub ñu jox la teggin ne la jub loolay mbir mi raaya raaya gi amut ca looloo waral yàlla moom ci digg bi rek lay jaar bu waree dal ci yàlla xéeféer dal ci ñoom bu waree ŋàññi seen pas-pas mu ŋàññi bu leen waree xooy ci njub mu xoo ci njub noonu rek la de Ibrahima waxuma sax mbokkam waaye baayam la wax ne yaa abati laa taabudu seytaan in seytaan kaana li rahmaani asiyan yaa abati inni axaafu an li seytaani waliyan wax naag baayam ne ko bul jaamu seytaane yàlla jox na ma xam-xam bu la joxut nitam yi nag moom daf leen wax da ngeen a réer uffin lakum cam la leen ci tegal wali maa taabuduuna min duni laahi rek xeem yi ngeen jaamu afalaa taqiluuna mën a du ngeen xelu kon mënoo dëng ba pare ne la ne ragg sa der dëgg rek lañ lay wax <clears throat> an yaquloo manax da sa dënn dafay xat bañu wax ne law laa unsilalu tee ñu wàcc ale ci moom kanzun halal ju bëri aw jaa wala mu dikk maa wax nag moom malakun malaaka yaqulu ñi ngay wax naa yaa muhammad yow muhammad ante yow faqirun ku ñàkk nga amoo dara te daayi ngay woote annaka ne yow rasulullah yonent yàlla nga wala si nekkul ànd ak fa yow cheun dara minal maali ci alal xamoo alal nga ne yonentu nga yow ko amul dara nu mu nekkee yonentu laa nu minu duñ gëm mukk bi haga ci lii isa kunta boo nekkee rasulan di yonentu farekun na nekkee ànd ak fa yow almaala alal de alwaafir ju bëri wala yaati naa nañu dikkal malakun malaaka yu sadiqu ko bu dee dëggal ka maxtarax naa comme niñ ko sàkkoo boo de yonantu nga na nga am alal ju de ñu xam ne yow yàlla teral na la nitu àddina moom alal rek la jàpp ne mooy daraja moo tax ñu ne yonantu foo mu am alal boole ci malaaka ñëw di ko dëggal ne yàllaa ko <coughs> yàlla ne ko inna yow nadirun aji waare rek de allahu yàlla tabaraka bani wa taala kawena xaata boo wax naag moom bi an laa alayka ne dara warul la illal balaaxul mooy jottali laysa nekkul alayka di la war alitiyaanu andi bi maxtarawu ci lañ sàkku kawteef yi ñuy sàkku yow warul la kooku yàlla la war te yàlla du lu nit ñi laaj rek mu andi moom lu mu war a andi rek lay andi de wallaahu yàlla wakiilun aji wattu la mu ala kulli shay'in ci lépp lu nekk xafiisun aji la mu fayu jaajëm naa leen fay bii ci moom laa yaxdu mu du màgg indaam naa duniyaa ci doomi àddina yi illaa amrul maali lu mooy mbiri alal doomi àddina yi daal alal rek moo rëy seen bët xataa yazunnuuna ba dañoo jot ne ana na benn yonent bi sallallahu alayhi wa arisalata yonent ga illaa bi kasatil maal lu mooy mu alal ju bëri wan na bi yonent di jaa dikk na nag luy zahida ngir mu dëdduloo annaasa nit ñi fi duniyaa ci àdduna ngir ñu jublu alal axirati ci àllaaxira de loolu waral amul alal mu tànn ak ñàkk ndax dafa bëgg nit ñu jublu àllaaxira wan gannaaw àdduna foofu foofu moom yonentu laay baal du faale bin maali ci alal aslan ci cosaan <coughs> woowum ñoom nag يريدون ان يبقى ان يجد معام المال على ليكون غير ممانك كبيرا دي مك لو نيال لكو رئاسة الانجيت وجاون اك درجة فيستيقو مدال من يلو انو بوتي يرن تغري يالا نغم قول لول ام بايل يقولون دنيو انا افتراء وفنتنا القرآن ام بايل يقولون دنيو ان النبي لك ينتب صلى الله عليه وسلم هو الذي ما يكيها خمنا اتا النبي القرآن جاء القرآن مين لي جريش فمم قل وخل فاتوان دي لين بعث سورين تفكي سار مثل يمين القرآن في الفصار تفصار والبلاخر اجتل moftoreyata yin fentide fayinnokum naka yen arabu ayaram e gen fasaha yu fasa misli comme man tahaddaum <clears throat> denga lot lonalen biya ci alquran lib awolan ci njel ben wala bok biya ci fukki sar awolan njel ben bu fekke rengen ne mako fenti ta arab la comme yen yenin fasa ngen arab ngen dajelo len rek ngen andi fukki sar munuñ ko de suma bi suratu andi len ben sar bu melni lima andi منكو هذا اللي هو التحدي مولوك لوغا انا ينتبه صلى الله ياتي دنا اندي بشين تدرا ينجز دنا لطو المخلوقات من نفي جميعا مولا ينجز دنا لطو المخلوقات من نفي جميعا مولا مسن ويقول من هنا اتو اندي لن بمثل هذا تلو من القرآن ولا يتو بل اندي بمثل من الموم اندي من القرآن تلو من قدف تاي عرب لن تمنين كو لن القرآن جيسي الله جيسي الله جيسي الله جيسي الله جيسي الله bil quraan ci alquran jamen mboolem seen mu ne xul waxal léeni kamaat nam dañoo na alin su nit ñi wal jinno ak jinne yi raan yaatoo ci ñu indi bi misli haada alquran ci lu mel ni bile alquran laa yeetoon duñu indi bi misli ci lu mel ni moom walaw kaan dina nekk na baadum ñenn ñi zahiran di dimbale li baadu ñeel ñenn ñi nit ak jinne yëpp buñ dajee woon dimbalante pour indi lu mel ni al alquran mënuñ ko loolu la yàlla njëkk wax rek yaaram yi màkk yi lottu ca aqaru saxal nañ bi ajjim seen ak lottu xëy itiyaani ci indi bi misil quraan ci lu mel ne alquran fa tax daaw mu lot loo leen saaneen yoonu ñaareel nequl waxal faatu andi leen bi ansi suwarin ci fukki saar misil yu mel ne alquran muftariyaat yuñ fenti aatu andi leen بعكس ورين شفك سار مثل القرآن إنه من القرآن فعجزوا نلطو فتعداهم ملط لولين بسورة واحدة بين سار قل وقال فاتو أن لين بسورة سار مثل جن من القرآن إن أعطيناك نتلا رجلا أن لين نتلا يمونكو جاز القرآن لطلو دي القرآن لو بولم أدنى من باب الفساد من ngi بنت ci bunta fasaa fasaa لير بلغ جدنا القرآن القرآن, jot من الفساد تي فسا مبلغا جوت واي بو خامني ما بلغو جوتو كو كلام واخ ابدا بفو وكذلك نكون البلاغه وعد جوت القران نيم ليري اك نيمي جوتالي كنن منوكو وكذلك نكون ان نظم نكون نسي كنن منوكو ري وكذلك نكون الاخبار من خبار بالمغيبات تي نيوغوت كنن منوكو كل هذا ليلب انجاز اك لوت لولا alquran baat bu nekk lam làmboo ci ay maanaa lay joxe ah, baat bu mu indi rek dafay ëmb maanaa yam soxla yépp yàlla rek moo mën a waxe noonu wax joo xam ne baat bi mu indi bàyyiwut dara ci maanaa ba yokkut ca dara kooku yàlla rek ko man <coughs> dégg loolu mooy fasaa am gi ak balaaxam gi kenn mënu ko yow boo doon bind leetar lum leetar bi rafet rafet léeg-léeg nga dugal baat boo xam ne maanaa ba wàññeeku na wala mu ëpp waaye alquran moom baat bu nekk fa mu ko teg foofu la ko war a teg maanaa ba mu soxla du ëpp du wàññeeku kooku yàlla rek ko man mooy doye bi gën a kawe ci balaaxa ak ci fasaha doye bi gën a digg doomu nag mooy nga ni wax ju rafet yoo xam ne nit ñi dañ ci mën a jariñu waaye baat bu nekk moom nga teg ko fa mu ko war a teg moom kooku mënu nekk si misaal doomi Yaquba ya bañ a ànd ak seen mbokk ma Yuusuf sànni ko ca teen ba ñëw ne seen bàyyi tilli yee lekk nañ ko dañ ne fa mu lekk ko azibu tilli loolu la Alxuraan nettali mu lekk ko azibu tilli xam ñeen ñu ne déedéet till dafay fàdde kon li gënoon nekk balaaxa mooy alquran wax faf tarasoo mu fàdd ko azibu till ndax lekk moom till dana ko def ku dul till dana ko def amma fàdde moom kooku ndog ment rek ñoo ko ñoo ko jagoo kon li gënoon a rafet alquran ne faf tarasu mu fàdd ko azibu till bañ a wax ne fa faakuloo mu lekk ko azibu till léegi alquran lam soxla ci baatu akalahu rek moo ko mën a joxe faf tarasu mënu koo joxe ndax doomi yaquba ya lañ bëgg wax mooy tilli gi lekk na ko ba desut dara te boobu baatu akkaloo moo ko mën a joxe fa akkaloo mu lekk ko asibu tilli gi baa ji dafay dégg ne nopp sax desut fa waaye bu ne faf tarasoo moom faf tarasa mooy rey na ko rek waaye yaram waa ngi kon su boobaa daan leen wax indi leen ma yaram wa de gis nga balaa xam alquran moo tax jëlul faf tarasoo te bu doon man la mën naa jël faf tarasoo mu fàdd ko asibu till te boo waxee loolu kat danañ la laaj ana yaram wa kon indi ko waaye boo ne fa akkaloo lekk na ko asibu till mooy wee sax desut fa su boobaa duñ la laaj ci dara noonu la alquran amee balaaxa kooku nag alquran rek ko man walakin waaye nag taxa daawam lot loo na leen bi ne jaas yi ci won leen moom leen lu indi lu mel ne alquran xay su annoo ba nga xamee ne ñoom lam yaatu andiwuñ bi xase suurin ci fukki saar misli yu mel ne alquran fi fasaati ci fasaa muftarayaatu yuñ fenti mënuñ ko de وين كان دي نكنا مضمون تلك صوري لا ساري ولا مو اكاذيب دي اي فن نيوم نان فن صح واي ني اندي رك وخذ القران من كوني ولكن واي يكون ذلك في فزاعة القران في فزاعة القران في هذا بهذه المرتبه في بلا مرتبه اندي رك وخذ اي فن لا صح واي نك بي القران ام في فزاعة موي بات بو نيك لا نسوخلا رك maanaam bi nga soxla baat bu tolloog moom rek ngay jël ak ku ko wàññiwut ko nag kenn def lool kenn mënu ko alquran rek man lool wow ñoom aaji sona way lott nañ ansaarika ci loolu fala ma aaji soo bañ lottee ansaarika ci loolu xaamat ci la taxaw al hujjatu lay alayhim seen kaw ba nga xamee lott nañ ci loolu nag ci la lay wi tabbi waaw seen kaw rek laa wax de ñu xam ne alquran nag alquran meneen di laay mu ngi jógee ci yàlla law kaana bu nekkoon meneen di nabi jógee ci yonent bi woo moom arab yu arab la mislum ñoom woo ñoom arabun arab lañ misloo comme yonentu la qadro kon danañ man andi yaatu ñu andi misli maata ci lu mel ni andi na ko bii ci moo andi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de bu doon ci ñu man bi ci lottu giñ lottu anaan dara yu saakiru dana niroog alquran alquran fil fasaati ci leer wal balaaxat ak ci tal wax baaru ñenn ñi daxala dugg na lislaam lislaam bi fasaati alquran yi ci fasaa alquran faqa dong xam ne ñoo xam ne fasaa gi alquran fasaa rek moo leen dugal ci wax moo leen dugal ci lislaam de sama dégg na arabin benn sàmm xaariyaan aji jàng yaqaraw ma ngay jàng naan fas dan xottil bi ma tuumaru ci dañ la digal fasalira mu sujjóot laa ñeel yàlla xaala ñu ne ko li ay nu tax nga sujjóot mu ne li fasaati fas da ngir fasaat baat ak fas da de bàyyiwut dara xottil leeral ko ba leer nañu wa don na ngeen xoo lil mu aw na di ngi dimbali ko wala zalika ci def lu mel ni alquran man istantum ko ngeen mën a min duni ci kudul yàlla xëyr kudul yàlla in kuntum na nekk ngeen saari xeen di way dëggu fi anoo ko fent dimbali ko leen mel ni moom fële mi sëji boo ne muy wuñ lakum ñeen leen min daawatihim ci woote ga ñuy woote leen mu awana yi nga dimbale bu ngeen wooyee ñu seen yàlla yi ak ñi ngeen bëgg ñu dimbale leen mënuñ faalu moo xam leen koo xitaabu dafay wax ak li musrikiin ñeen bokkaalekat yi annama unzila naka wàcce nañ ko unzila wàcce nañ alquran alquran ji làmboo benn mi laay ci xam-xam yàlla moo tax mu a fasaa googu wala si ko iftiraan di fenti wa an naka mbir ti laa ilaa amul benn buur bu ñu war a mooy yàlla faalantum ndax yéen mun way jébbalu ngeen rek laa wax de baada hadir hujjati gannaaw lay ngi alqaate ga aji dogu aslamoo ci leen jébbalu de waaw gannaaw lii nag ci leen jébbalu waaw ñe yàlla na mus ñoom jub man kaana ku nekk yuridu di bëgg alxayaatu dunya dund àdduna wazinata ak taari benn asarata mooy mu nuur ala sirki ci bokkaale yàlla waqii lañu wax wax nañ ne yii moom fil muraayi ne mu ngi wàcc ci way ngistal yi ñi nga xam ne ñuy ngistal la ñuy def yëpp taari àddina lañ ci bëgg ak dund àddina yàlla leen wëffi danañ matal ileem jëm si ñoom amaalum fay seen i jëf jazaa ma amilu fay lañ jëf min xayrin ci lu baax ka saraxate ni ngi saraxe wasilati rahim ak jokk mbokk fiyaa ci àddina daan nu wasiante moo ñu yaatal alim si ñoom risqoom seen wërsëg wowum ñoom fiyaa ci àddina ay fi duniyaa ci àddina laa yub xasoon duñ leen wàññi dara laa yub xasoon duñ leen wàññi cee am dara de kuy jaamu yàlla fekk àddina rek lay wut yàlla nee danaa ko jox àddina ba mu doy sëkk du ma ko ci wàññil dara su ma neexee nag laa wax waaye ulaayka ñooñu la gars yi laysa nekkul alladina ñooñu nga xam ne laysa nekkul lahum ñeel leen fil aaxirati ci àllaaxira illa naara lu mooy safara ñooñu nag àllaaxira safara rek mooy seen fay laysa nekkul lahum ñeel leen jisaawun fay fil aaxirati ci àllaaxira de safara daal la leen yàlla jox moo tax war nañ ne lu baax li muy def fii ci àdduna la ko yalla faye de ndax kuy def ngir àdduna yàlla lu baax li nga def lépp ci àdduna la koy faye fayee waaye àllaaxira safara mooy sa fay de wa baatinu aji yàqu la maa kaanoo lañ nekkoon yaamaloon doon ko def lañ doon def ci lu baax yëpp neen la amut fay ci àllaaxira afa man kaa ndax ka nekk na ala baynatin ci leeral bayaanin ci mbir mu leer min rabbi jógee ci borom wa yatluhu mu ngi koy topp yet baaxu mu koy topp شاهد أجي سيد له ياكو يصدق قدرنا كدقل منو جعيت يا الله وتمام جبريل ما جبريل له ومن قبله جكنا أجي سيد جوجو قبل القرآن جكنا القرآن كتاب موسى تي موسى توراة شاهد أجي سيد له ياكو أيضا بتاعي كنا خمدني يا الله أنزلنا بير ملير مجيت برمم يا الله أنزل جبريل ولا القرآن مجيكو سيد له ياكو لينا نكدقل القرآن توراة سيد له yonent bi dëgg la wala nga ne laaya ji ci képp koo xam ne jullit la boo xam ne ni mu ngi jàpp ci lislaam mu di mbir mu leer bu jugee ci yàlla alquran di ko seedeel téere yi di ko seedeel imaaman mbir mu mi jiit moom tawraat wa rahmatan di yërmande dégg nga ndax mel na ni ki nga xam ne lay si nekkul kazaalika comme noonu de ki jàpp ci lislaam alquran di ko seedeel na ko la jàpp dëgg la téere yi njëkk di ko seedeel loolu wala yonent bi jàpp ci wax yu ko jugee ci yàlla jibril di ko seedeel waaw jugee ci yàlla naka noonu tawraat di ko seedeel ndax mel na ni ku mel ni koo xam ne ni amul loolu de walaay ko ñu la gaal ay man kaana ka nekk ala baynatin ci lu leer yu mu noonu danañu gëm bii ci alquran de bil quran ci alquran foroom ñeen leen aljanatu aljana ñu jàpp ci islam ñooñu danañ gëm alquran te buñ gëmee alquran yàlla jox leen aljana ba may yakfur ku wedd bii ci alquran min ahzaabi ci mboolem kuréel yéeféer yi jameen kufaar yi mboolem yéeféer yi fa naaru safara maw'iduhu moo di ak ak ak dégg nga rendez-vous am de ku weddi alquran euh, safara mooy barabam falaa taku bul nekk fii miryatin ci sikk ay sakkin sikk minu ci alquran day mel alquran jugee ci ci alquran sa borom walakin aksara naas yi waaye ñëpp ci xéeféeri ci nit ñi mooy ahla makka ñëpp ci waa makka laa yi mu noonu duñ jugee waaye ñu bëri ci waa makka weddi nañ ko kaana nekk na abu hurayratu kullama qaala saa yu waxee rasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam shay'an dara rek talaba sakku na misdaaqu ak dëggoom fil quraan ci alquran wa wajadoo fekk ko leen abu hurayratu saa yu yonentu waxee rek dana ko xaatir ci alquran ba gis ne waxi yonent bi ak laaya ji ñoo dëppoo fa jarasa mu toog qawmun aw qawmun aw nit yawman aw bis yataharasuuna di waxtaan ab nit dañoo mos a toog ci saaba yonent bi di waxtaan kenn ki ne ajaban kimtaan ñeel na li Ibrahima ñeel Ibrahima i tax soo jàpp na ko laa yàlla xaylan mu di xaritam ajaban kimtaan li Moussa ibn Imran ñeel na Moussa doomu Imran kala moo wax naag moom allah yàlla takliman ak waxe keneen keneen maa woo de loolu bi ajaba di gën a yem min insa ci insa alladi gi nga xam ne xalaqa bind na xuliqa bind nañ ko min ruux laay ci ruux bi yàlla tabaraka ba ni wa taala kawe na léegi nag yonent ngeen di dégg xaraja génn yéen ñun si ñoom rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam de fa qaala mu wax loom ñee leen yonent génn ak taaram ne leen wala ji maa ngi ci nga xam ne nafsi sama bakkan bii di mu ngi ci loxoom lawansa bu dundoon Musa ibn Imran Musa doomi Imran alladi gi nga xam ne unsira wàcc nañ àlla ci moom tawraat tawraat wa insa ak Isa ibnu Maryam alladi nga xam ne unti la wàcc na àla ji moom moom alin jilu injil maa wase topp ma kon xam nga yonentu moo leen gën a de wa kullu man adraka nii képp ku ma jot wala mu nii te ma foo moom mi ali naari si waa safar la bokk ah Abu Hurayra ne maa ngi xool lool nag fu ko alquran di wax قال وانا ابو هريره فكنت نكون اطلب لساكو دليل هذا تكتل لي في القران في القران حتى وجد بهم فك هذه الايه بلا ايه ومن يكفر كودي بي جنت من عذاب في مبولم كوري فالنار سفر موعدهم ودي بربم رك لاوده مودي مودي راندوم فلا تكب نك في ميرتين سي ورنته منو بو جوغي سي يالا دي كوي مودي گيس ne kullu man kaana képp ku nekk ala ay diinin ci diin jum jum mën a doon kaana nekk na wala balaxa dira jot na maa balaxa lam jot mais tax suufi si ñagas ñagasu wala ba dara teg jaamu yàlla yi ilam yumin bu gëmut bi ras rasuli ci yonent bi sallallahu alayhi foo moom kaafir na yéeféer woo moom chaqin ku te xaaji la min ahli naar safara kon ku dajeeg yonent te war koo gëm inoo moom alxaqu dëgg la mi rabbika bu jógee sa de wala keneen aksara naas ñu ëpp ci waa Màkka la waaye mi noonu duñ azlamu anaka dàq tooñ mi man iftara ci ko duulal na la kasib kasib kasiba nar ki fenal yàlla kooku kenn dàq koo tooñ moo tax mënoo duural yàlla ay nar ba pare wax ci diine ji ay fen ba pare nit ñi wax la dara nga dañ laa tooñ yaa gën a mën a tooñ ñëpp rek laa wax de binis bi di ci askane bokkaale wal di ak doom la gaa yi yoon doon dañ leen gaaral laa rabbihim fa seen borom yowmal xiyaamati rek bis ci fi jumlati xalq ci mboolem mbindee fi ñi nga xam ne fentel nañ yàlla ay nar yowmal xiyaamati yàlla dana leen taaj ñëpp taxaw wa yaqulu mu wax ashhaadu seede ya jamu shahidin shahidin mooy benn seede ak yu bëri ñoomal malaayikatu mooy malaaka ya nag ña ngay seede di wax yashhaduuna danañ seedal li rusuli ñu yonent yi bi iblaaq si jottali ne yonent yi jottali nañ wal kufaar ña ngay seedal xéeféer yi bi teg si bi ne weddi nañ bu ko defee nag yàlla dana gaaral ñëpp yoomal xiyaamati malaaka yi seede ne yonent yi jottali nañ xéeféer yi dañuy nar gëmu ñoon yonent yi haawlaay gaañi alladina yi nga xam ne kese boo wet nañu alaa rabbim seen borom dañ ne alaa yëgal laanatulaay haawlaay malaaka yi ñooy wax naan haawlaay gaañi de alladina ñoo ñi nga xam ne kese boo wet nañu alaa rabbim seen borom de buur ne alaa yëgal laanatulaay rëbbam yàlla soril buur bi yërmandeem ala zalimina nekk na ci tooñkat yi al ne war na bokkaale kat de alladina ñi nga xam ne yasudduna dinañ dëddu an sabilillahi ci diine yàlla ji moo di diine lislaam waaye bëggu naa ñu di ko jàpp ñoo wajan muy lu jàng moo wajan muy lu jàng rek jàpp lislaam xaraam di ko saboté dégg nga wax ci lu ñaaw lu ne wum ñoom bi àqati ci àlaaxira wum ñoom ak kaafiroon ñooy weddi ñooy weddi ñe de ñooñu àlaaxira ñooy ñi xéféere walaaki ñooñu ne gaa yi lam yekkuno nekkuñ moo ji di raw yàlla ak di raw allah yàlla fi naati suuf duñu raw yàlla mukk foofu mbugalam yàlla wàcc ci ñoom wa maa kaana nekkul loom ñe leen min duuni laay ci lu dul yàlla ay xëy lu dul yàlla mais awliyaa ci ay ndimbal de al ansaar way dimbale yu daa fu danañ fulloom ñe leen anasa bu mbugal bi laalim ci réeral gi ñu réeral xëy ñu dul ñoom yàlla dana leen ñaar yoon ndax réer nañu réeral keneen maakaanoo nekku ñoon yestatoon di àttan asama dégg li àq ñeel dëgg wa maakaanoo nekku ñoon yub suroon di suroon di gis dëgg de li farti karaatin ngir jégg de seen ak sib lawum ñeel law ñeel ko ñeel dëgg kaanoom daf mel ñoom la mel sati waat nuñ daaliku loolu mun ñoon dégg dëgg mënuñ koon a gis ndax dañ koo bañ walaay ko ñooñu la gaaye ëllëgin ñooñu pertal lañu anfusum seen bopp li masirim ngir mujj guñ mujj leen naari jëm safara al muhabbadati al muhabbadati ci ñoom ngoo dal la fàdduna xaaba fàdduna anum walis leen maakaano lañ nekkoon yeftaroon di ko ko gisati xam ne yàlla rek moo di dëgg laa jarama du dëgg xaqan ci dëgg anum na ñoom fi àqira ci àlaxira um ñoom alaxtaroon na ñoo de way perte ña de ñoo ñoo perte ci àlaxira ina lëjin naka gaa ñi nga xam ne amono gëm nañu farata yaag naafila ya wax batu te ñu dal sakkanu dal nañu watmaa nu ñu dal waanaa boo ñuy del ilaa rabbihim jëm seen borom wulaay ko ñuy ne gaay asaabul jant ñoo ñoo di ñoom ñooñ aljana hum ñoom xaaliduna way bell ñu fiyaa ci aljana nurul islam asalaamtu ma tawfiqi billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa wa barakatuh